bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullah ñi fas yéene waxtaane jaar jaari soxna jaaratullahi mariyaama buso soxna jaaratullahi nag mi ngi bokk ci askan wu tedd di askanu mbuso bi ñoom nag seen cosaan ñu ngi dëkkoon Fuuta Tooro ci dëkk bi ñuy wax Golléré waaye nag kii ñuy wax maam Hamad Ali nga xam ne mooy maami soxna jaara ndax moo ne soxna jaaratullahi Mariama Buso ma Buso Awa Mbaay mooy waajuram ma Buso Awa Mbaay mu sëriñ ma tabara Buso sëriñ ma tabara Buso maam Muhammad Ali maam Muhammad Ali mii nag moo bàyyi ko Fuuta Tooro ñëw Jolof bim ñëwee nag daldi ñëw ci Sëriñ Xobbi Siise daal fay dal xob bi moo ko dalal daldi koy jox doomam yu ñuy wax soxna Xujja Siise bi ko dencee mu daal di ciy am soxna Buso ak sëriñ matabara buso soxna buso ñi jox ko maam maharam mbàkke mu am ci ahmadu soxna buso ak sayer soxna buso kon da gis ne soxna buso mii moo boole mbàkke ak mbusoobe kon dangay gis ne mbàkke ak mbusoobe ña nga bokke ca jolof soxna buso mii moo leen boole sëriñ ma tabara buso moom daal di denc soxna suñuy wax awa mbaay am ci sëriñ ma buso awa mbaay sëriñ muhammadu buso la tudd mooy waxi nun daan ne ma buso awa mbaay sëriñ ma buso awa mbaay mii nag dafa daal demaat ci kër ahmadu soxna buso daal di denc soxna astawaalo mbàkke am ci soxna jaaratullaahi mariama buso ak sëriñ buso bi sëñ Musaa Ka mi ngi leeral fii ci néegub soxna jaara mu ne maam astawaalooy ndey soxna jaara budul kon moom kenn du sampi daara maam ndumbe daanooy ndey astawaalo ku mel ni moom amul kajoor ba waalo maam daaru sàqe awa dikke kamara ñooy ñooy yaari maamam yàgg na fa cànqeen kamara faamata sow mooy doomi anta sàll yi yaari maam seen càllalaaka sell mareema jóob maam xawa ba maam jayla ja bii tukkulóor moo am ngëneel am daraja maam yaa ngi wéy di wéy ba fuuta tooro diine gore leen te jaboot lam tooro daawuñu pookarey dërëm ak diinaar diinee taxoon ñu raw jolof raw gànnaar moo tax Sëriñ Musaa ko leeral fi néeg bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bokk mu andi maam yi ba ci maam Jayla Ja soxna jaaratullahi nag mu ngi gane jamono jolof foofa la gane jamono ci atum mille deux cent cinquante ci gàddaay gi tolloog mille huit cent trente-trois ci juddug yent yàlla Isa waajuram wu jigéen ni ma ko waxee mooy soxna Aysatu Mbàkke mu siiwe ci soxna astawaalo moom nag soxna astawaalo dafa nekkoon boroom xam-xam aalimatan aabidatun taqiyatun wariatun zaatu axlaaqin dafa nekkoon boroom xam-xam di jaamukatu yàlla nekk ku ragal yàlla ba noppi nekk ku sàmm ba noppi di boroom jikko ju teey tam siiwe nag ci géeju ci fànni xam yu sariya yi ba noppi it yàlla mayoon ko mu jekku làngu arab nga xam ne moom dara jàngale xam-xam yi mooy xam-xamu sharia rawatina nag téere bi ñuy wax muxtasaru xalil ci fiqhu imam malik moom da ko daa jàngale moom soxna astawaalo ak maqamatul xariri da ko daa jàngale ak yeneen yu dul moom ci fànnay xam-xam yi nga xam ne aw góor jigéen ñépp dañ daa ci moom di sàkku ci moom xam-xam nga xam ne xam-xam yépp da ko daa jàngale moom nag di soxna astawalo di waajur soxna jaara dañuy wax ne moom moo jàngal doomam ji di soxna mariyaama jaaratullaahi moo ko jàngal alquranul karim ak mbooleem xam-xamu diine yi te it noonu it la ko yare ci jikko yu rafet tàggat ko ci mboolem liggéeyu kër maanaam niñ war a taxawoo kër yépp mu tàggat ko ci ak li jigéen war a taxawe lépp mu yar ko ca tàggat ko ca waaye nag am na beneen riwaaya buy wax ne soxna jaaratullahi mariama busa mi waajuram moo ko jàngal waajuram moo ko jàngal alquraanul karim di sëriñ ma buso xawa mbaay mu si ñu koy wax muhammadul buso muhammadul buso bi waaye mu siiwee ci ma buso xawa mbaay mooy waajur soxna jaara am na benn riwaay bi wax ne moom moo ko jàngal alquran bam mokkal alquran boobam mi ngi am euh, fukki at waaye nag mu daal di xamlu nag ca nijaayam maam tafsir mbàkke ndumbe ñu wax ne moo ko jàngal xam-xamu diine kon dafa am ñaari riwaaya riwaaya bu njëkk bi day wax ne waajuram di soxna astawaalo moo ko jàngal te loolu siiw na lool waaye beneen riwaay bii nag day wax ne waajuram wu góor moo ko jàngal di sëriñ ma busa awa mbaay moo ko jàngal alxuraan ba mokkal waaye nag xam-xamu diine nijaayam moo ko jàngal di maam tafsir mbàkke ndumbe moo ko jàngal xam-xamu tafsir ak fiq ak xadis ak siira siira jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi yépp sëriñ Mbàkke Ndumbe maanaam tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko jàngal di nijaayam ndax tafsir Mbàkke Ndumbe ak Soxna Astawaalo ñoo bokk ndey ak baay ak yeneen fànni xam-xam yi ñu wax ne moom moo ko nga xam ne bi muy am fukki at juróom-ñeent dafa mujj ne mel ni waajuram wu jigéen woo di soxna astawaalo ci xam-xam ndax soxna astawaalo ni ma ko waxee dafa yoroon daara di jàngale bi soxna jaare am fukki at ak juróom-ñeent mook waajuram ñoo yem ci xam-xam di soxna astawaalo ci sóobu gum sóobu ak sax gum sax ci jaamu yàlla ndax soxna jaaratullaahi mariama buso mi ci ak ndawam ak ak ak magam yépp dafa nekk misaal ci mbooleem soxna yi jigéen ñi soxna yi nga xam ne ni mooy soxna yi jullit ñi ñi nga xam ne ni dañuy farlu ci ak jaamu yàlla ñoom ñépp dañ ko doon roy ndax li ko waral mooy taqoo gim taqoo ak principe bu diineem te ak ndawam bi mu nekk tànk moom soxna jaara dafa nekkoon ku ragal yàlla ba noppi nekk ab sufiyanke ba noppi nekkoon koo xam ne jaamukatu yàlla la comme ni waajuram jigéen yu meloon di soxna astawaalo nga xam ne dafa bëri woon jaamu yàlla moo xam farata la ak naafile yi yépp da ko daa taxaw di jaamu yàlla nga xam ne dafa mujj jaamu yàlla gam daa yàlla nga xam ne saxoo gim daa saxoo jaamu yàlla moo xam jaamu yàlla yàlla farataal ci moom ak yi nga xamee ni ay naafile ci moom mu saxoo ko ak sufiyanke gim doonoon ak ragal yàlla gi ak jaamu yàlla gim doon jaamu yàlla tax na ñu ko daa wooyee jaaratullaahi mooy soxna si nga xam ne dafa dëkk ak yàlla ndax li ko waral mooy julli gu bari daa julli julli gu bari gam daa julli ba bis sax wax nañ ko ne ko tee ngaa noppal sa yaram mu ne leen ah ñaari aay yii ne ci alxuraan de moo tax munumaa nelaw ñaari aay yi ma gis ci alquran moo tax munumaa nelaw ay bi ci njëkk mi ngi ci suratul isra mooy wa min al leyli fa tahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaama mahmuda guddi gi na ngay naafila guddi di def tahajjut maanaam xaar ba ñépp nelaw nga jug di def ndolleen di jaamu yàlla yàlla de boo boo jaamoo yàlla ci guddi googu di fanaanee fanaane naafila ka jaamu yàlla yàlla dana la may saxawaay saxuwaay boo xam ne bu ñu sant la maqaama mahmuda muy taxawaay bu ñu sant ëllëg yàlla dana la dekkal nga am nga am saxawaay bu ñu sant muy àjjana ak it aay bii nga xam ne mi ngi nekk ci zuratu zariyat kaanu qalilan min alleyli ma yahjahuun wa bil ashaari hum yastaxfiruun mu ne ñi nga xam ne ni ñoom dañoo néewaloon uh, guddi gi nga xam ne guddi gi dañ cee néewal ay seeni nelaw dañ daa dañ daa jaamu yàlla ci guddi gi bu njël jotee ñuy jéggulu suñu boroom ne loolu ñaari aay yii daal moo tax guddi gi moom mënuma cee nelaw waaye dama ci jaamu yàlla nga xam ne loolu moo taxoon ñu ko daa wooyee jaaratullaahi nga xam ne kon soxna Mariama mooy turam waaye jaaratullaahi gi nag moom ab garaat la garaat boobu nag mooy jaamu yàlla gam doon jaamu yàlla ak topp farata yi ak sunna yi ak naafile yi ak di jaamu yàlla guddi ak di saxoo woor saxoo tudd yàlla ak maandu ga maandu ak ragal yàlla ga tax na mu nekk royuwaay ba ku nekk di ko roy bañ tuddee ko nekkat soxna si kat mooy ki nga xam ne dafa dëkk yàlla ndax foo ko fekk day jaamu yàlla foo ko fekk rek mu ngi jaamu yàlla nga xam ne soxna jaaratullaahi dañuy wax ne bi muy am fukki atak ak ñeent moom li mu war a jàng ci alquran jàng na ko ba mokkal ko li mu war a jàng ci xam-xamu sharia jàng na ko ba mokkal ko ba man ko gannaaw loolu nag ci lañ ko jox sëriñam bu tedd boobu di Maam Mor Anta Sali moom nag Maamor Anta Sali nag day nijaay la ci moom ndax Maamor Anta Sali maam Balla Aysa maam Maharam soxna Jaara soxna Astawaalo Ahmadu soxna Buso maam Maharam kon na ngay gis ne maam Balla Aysa ak Ahmadu soxna Buso ñoo bokk maam Maharam soxna Astawaalo ak Maamor Anta Sali ay doomi baay lañ seen baay yaa bokk benn baay soxna jaara Mamour Anta Sali nijaayam la waaye nag ki nga xam ne moo ko dox ba yàlla dogal mu sotti mooy soxna Anta Njaay Mbàkke soxna Aysatu Mbàkke tam siiwe ci soxna Anta Njaay Mbàkke moom nag moo dox diggante bi ndax jikko ju rafet ji nga xam ne moom la soxna jaara nekk bañ tuddee ko soxna jaaratullaahi jikko jiikat ak jaamu yàlla giikat xemmem na ko ci moom lool moo tax bi nga xamee ne nekk na kër sëñ Mbàkke Mor Anta ba mu yàgg moo dox diggante bi ba soxna jaaratullaahi ñëw kër Maam Mor Anta bi nga xamee ne ñëw na it nga xam ne soxna soxna Anta Njaay ci jikko ju rafet ja ndax barke bi yaatu na te bëgg na barke bi ku ne xacc mu dox ba soxna jaara ñëw ca kër ga waaye ba mu ñëwee ne ko dama bëgg ñu waatoo ak yow ndax ñun ñaar yàlla may ñu njaboot gu baax ku ci nekk na nga wax lan nga fi fas yéene am ah soxna jaara ne kon njëkk la wax soxna Anta jaar ne ko man di fas naa fi yéene am lu toll ni bi ak weer wi ah, soxna Mariama ne ko man di fas naa fi yéene am lu ëmb jant bi ak weer wi ah ñoom ñaar na ku ci nekk la nga waxoon yàlla may na la ko langa ñaanoon suñ boroom yàlla may na la ko ndax soxna Anta Njaay Mbàkke am na fa jant ak weer mooy maam Seex boroom gaawaan ak sëriñ Afiya Mbàkke Ahmadul Muxtaar kii mooy jant kee mooy weer waaye nag soxna jaaratullaahi yàlla nangu na ak ñaanam ndax may na ko la ëmb jant ak weer muy asamaan ndax ñoom ñépp di sëriñ eh, Afia ak eh, maam Seex Anta boroom gaawaat ñoom ñépp ñoom ñépp ñu ngi barkeeloo ci sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa moo mooy asamaan moo ëmb jant ak nga xam ne kon ñoom ñaar ñooñu la taxoon ñi di ko wax rek mooy ñoom ñépp am ca barke ba rek te ñoom ñépp yàlla jox na leen barke muy soxna antanjaay Njaay Mbàkke ak euh, soxna jaaratullaahi Mariyaama Buso nga xam ne ñoom ñaar ñooñu jigéen gu ne war na leen a roy ndax ñoom kat ay royukaay lañ soxna jaaratullaahi maryaama buso nekk misaal ci képp ku ci ci yàlla ndax dafa suubu woon ci yàlla aw yoonu gaay yu baax ya ba noppi it yàlla may ko jikko ju rafet misaal la ci ku ne roy ko ci moom ci sóobu gam sóobu ci jaamu yàlla ak jikko yu rafet ya nga xam ne naar bi ñuy wax seex muhammad ibn abdurahman al alawi leeral na ko ca téereem bi ñuy wax annafaxaatul miskiya fi siiratil mbakkiya mu wax ne moom soxna jaaratullaahi dafa bokkoon ci jigéen ñi nga xam ni dañuy jaamu yàlla te siiw ci barke ak sell ak saraxe ak jëf-jëf ju baax ak taqoo ak jaamu yàlla topp yàlla yàlla mu barkeel mi te tedd ak di moytu lépp luy lënt moom da ko doon moytu te it du ko masa laal te du ko masa jege nga xam ne as seex alawi mi nga xam ne moom la ñuy wax muhammad ibn abdurahman al alawi bokk ci giir alawi ba tey mi ngi wax ci même téere bi mooy nafa nafaxaatul miskiya fi siiratil bakkiya muy wax ne moom kat di soxna jaaratullaahi jamono yi nga xam ne mi ngi yore leerug siñ bi musta julli julli goo xam ne da caa tiim saa bu jullee rek day yore am jàpp te musta naan ci benn bëccëg nga xam ne daa taqoo koor maanaam at moom nga xam ne moo yore leeri siñ bi moo yore leer gi mi ngi yenu leer gi musta julli te jàpput te it danaa saxoo koor xanaa ngànt lu ko dikkal ba yàlla dogal sëñ bi gane jamono xam ne danaa saxoo woor di saxoo jaamu yàlla nga xam ne noonu la nekke woon ba teyit Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi koy leer mi ngi kay melal soxna jaara ci ci téereem bii muy wax minanul baaxil qadim mu ne kaanat waalidatu jaaratullaahi maryama saalihatun afifatun dayinatun kasiratu salaati wa wassadaqa muslimatun li rabbiha qaaimatun biwaajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa fima baynaha wa bayna qariniha aseexu imaam wa kaanat turabbi awlaadaha alal muruati wa diini wa tahaarati nga xam ne cheikh mohamadul basir mi ngi koy wax ci ñu ngi baax ne waajur wa di waajuru sëriñ Tuuba di jaaratullaahi Mariama Buso mais dafa nekkoon ku yiw ku fegu woon ku amoon diine ba noppi di bari lu muy julli bari lu muy woor bari lu muy saraxe ba noppi jébbalu woon ci suñu boroom nga xam ne léppam suñu boroom la ko jox ba noppi taxaw nag ci li ko war ci diineem ci diggante moom ak yàlla mi ko bind ak diggante moom ak sëriñam sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nga xam ne dadaa yar ay doomam ci kersa ak diine yar ay doomam ci kersa ak diine ak laab nga xam ne bari na lu mu leen daa nettalil ci di leen nettalil gaa yu baax ya maanaam gaa yi yiw yi leen nettalil Euh, ku mel ni Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani leen nettalil ku mel imaamu Junaydi Rifaa yi boroom xam-xam yooyu ak sufyanke yu nga xam ne ñi yiw ñi ba ci saxaaba yi mu leen nettali seeni jaar-jaar di ko nettalil ak njabootam ndax loolu lu am solo la waajur wu toog di nettalil ak njabootam gaa yu baax ya bu ko defee ñi man leen a roy nga xam ne boo demee ci min bu baax xadim sax sëñ Cheikh Mouhamadul Basir moo ngi ko fay wax nga xam ne dadaa nettali di nettali naan gaa yu baax yi dañ daa jaamu yàlla nga xam ne sëñ bi booba mi ngi nekk tànk waaye bu guddi jotee day taxaw di roy loolu di ko di di roy li soxna jaara di wax waajuram nga xam ne loolu lu am solo la ndax mi ngi ciy xiirtal a njabootam ngir ñu sax ci jaamu yàlla nga xam ne am na beneen nettali buy wax ne Sayxul Xadiim dafa bari lum daa yéemu ci waajuram woowu di soxna jaaratullaahi Maryaama Buso ndax dafa dafa kawe woon ci nëbbu sekkare nëbbu sekkare lu am solo la nga xam ne bari na loo xam ne nii dadaa xew waaye kenn du ko xam maanaam yàlla may ko doom joo xam ne nii doom ju yéeme la te xar baax bu ne mën na koo wane waaye kenn du ko xam sëñ bi lu mën a feeñe ci xar baax it soxna jaaratullaahi da koy nëbb te lu jafe-jafe-jafe la ci jamono ji danga yor doom sax bu jàng wax sax lu mu wax nga ne déggal wax na nàngam waaye soxna jaara mi moom dipp li sëñ bi nekk tu tànk ci moom secret yépp da koo nëbbal yépp da koo nëbbal lépp lu mu gis ci moom ci ay xar baax ak secret da koy denc ba kenn du ko xam nga xam ne sëñ bi loolu lu ko lu ko yéemoon la moom nga xam ne sëñ bi dafa daa ñaan naan yàlla na ko yàlla gërëm ak yàlla na ko yàlla fay ci man aw yiw ndax amut ku ko gën a tedd wala ku ko gën a rafetal ci man nga xam ne mi ngi Sëñ Tuubaa mi ngi wax naan suturaal na samay mbir ba nit ñi xamuñ ci man dara nga xam ne day wax ne dippi ba ma nekkee ndaw tut tànk ba ni ma nekkee mag samay sekkare kenn xamu ko lépp da koo dëxañ denc ko te loolu nag lu am solo la ah moom nag ak njabootam ñi ngi ganee Mbàkke Bawal maanaam li lenn ci njabootam du ñëpp nag waaye lenn ci njabootam mi ngi gañee mi ngi ganee jamono Mbàkke Bawal ki ñuy wax taawam bii di Mouhamadou buso tam siiwe ci Mamor Jaara Mouhamadou Jaara tam siiwe ci Mamor Jaara moom mooy taawam ki ci topp mooy seexul xaddim moo ci topp waaye nag ñoom ñaar ñii di soxna di di Mamor Jaara ak seexul xaddim ñoom ñi nga gane jamono ci Mbàkke Bawal foofu lañ gane jamono waaye nag ab diir bu gàtt rekk kii ñuy wax Ahmadu bint Kan nga xam ne mooy nijaay yi Mamor Anta ndax Ahmadu Binta Kan ak Anta Kan ak euh, Soxna Géey Kan ñoom ñett ñi ñoo bokk ndey ak baay euh, ma sàmba Soxna Géey Kan mooy seen baay kii ñuy wax Binta Seck mooy seen yaay soxna Géey Kan mii nag moom mooy waajuru Sëñ sàmbatu Tukulóor Ka ak siñ maska ahmadu binta kan nag mooy seen nijaay eh, maamoor anta moom soxna anta kan moo ko jur kon ahmadu binta kan mi moom moo nekkoon njakkan ndax ñoom ñaar ñëpp seeni waajur yi jigéen njakkan lañ jóge ah, ahmadu binta kan mii nag moo wax Mor Anta ne ko dangay ñëw fii ci xur wi dëkk fi ndax suuf si yaatu na Euh, bu ko defee mu nekk ab séenante nga xam ne duñ soree ñoom ñaar loolaa taxoon nag Maamoor Anta Sali daal di fay daal bàyyi ko Mbàkke Bawal daal ñëw Xuru Mbàkke bi ñëwee Xuru Mbàkke nag daal dëkk foofa nga xam ne moom nijaayam ñëw bokk dëkk foofa ci Xuru Mbàkke Xuru Mbàkke googu nag foofa la njabootam màgge muy Mamor Jaara ak Sëriñ Tuuba foofa fa lañ màgge ndax bi ñu jógee Mbàkke Bawol booba ay tutànk lañ waaye ca xuru Mbàkke nag euh, fa lañ màgge foofa it nag xuru Mbàkke googu fa la yàlla mayee wërsëgal soxna jaaratullaahi beneen doom bu ñuy wax maam Habibullaahi Mbàkke nga xam ne moom it xuru mbake la gane jamono waaye nag moom it euh, dafa faatu foofa la faatoo euh, ñi denc ko foofa ca xuru mbake muy rakki sëriñ Tuubaa di maam Habibullahi Mbàkke waaye nag xuru mbake googu nag bañ fa nekkee ba mu yàgg nag cala la maam Mor Ant maam Mor Anta Sali daa di toxoo daa dem poroxaan la waral toxu ga nag mooy kii ñuy wax Maba Jaxu Ba al imam tafsir al Maba Jaxu Ba moom nag moo woote jihaad moo woote jihaad xam naa nag euh, jihaad ji diggante ceddo yi ak euh, sëriñ si ndax euh, dafa am ko ñuy wax sëñ Mor Saxna Ñaan suñ Mor Soxna ñaan mii nag dafa amoon euh, buur Saalum bi jamono yim nekkeeb lawax lawax nag mooy ku war a falu te faloogo maanaam am na beneen buur bu fi nekk kooku nag moo doon wër dëkki Saalum bi ba ñëw Ndanji gi bi ñëwee Ndanji gi nag fekk euh, suñ Mor Soxna ñaan moomu génn suñ Mamar Soxna ñaan génn moom it nag mu daal di fab gannaaw ab ceddo la mu fab yére ya maanaam yére fas ya laab jaag yëpp daal koy teg ci kaw téere ya toog ci néeg ba ah sëñ Mor Soxna Ñaan bi mu ñëwee moom it xëy na gis na ne eh, yëri yam teg ci téere ba daal du teggin daal di koy génne dagg fas wa mu dagg buum nga ah kooku yi daal di mer eh, kumba ndaamu faal daal di mer ca lool lool nag ah ñaari wala takkaat aw fasam daal di dem bam demee nag ndeke loola jàpp na ko bam demee ba nga xam ne nag yàlla dogal na falu na Saalum ah mu daa di bind leetar sëñ Mor Soxna Ñaan moomu ca naan jiggi ne ko nag jamono yi mu fi ñëw ab la wax laa woon nga toroxal ma léegi nag maa moom Saalum dama bëgg nga abal ma naan jiggi wala bu ma fekkee du baax ah loola nag si Mor Soxna ñaan daal di dajale waa naan ci kii nag nee nag man moom du ma génn fii fii du fi jóge ah moom it nag mu daal di laajte ñi moom ban bis la ñuy dajee boo xam ne ñoom ñëpp dañuy dajee ñu ne ko ah bisub àjjuma demee ba njolloor di jot danañ dajee fenn di yàlla ah mu xaar ba àjjuma jot ba nit ñiy julli àjjuma mu ñëw daal di lakk lakk jumaa ja maanaam lakk jàkk ja fa ñu jullee ray ci ñu bari loolu nag tax na nag julli ñi nag daa di dajaloo nag daa di waxtaan ak al imaam Maba Jaxu Ba ah daa di koy jiital ne ko léegi dañuy fetal jihaat ndax liikat buñ ko defut buñ maanaam buñ aarut suñ bopp daañ dem ba maanaam diine ji sax daañu ñu ko tere loolu nag moo tax nag Maba Jaxu nag daa di woote jihaad jihaad jooju nag tax na mu daal di ñëw côté Mbàkke yooyu maanaam foofu ci xur wi fag nga ña fa nekkoon ñëpp yóbbu leen yóbbu leen Saalum nga xam ne dëkk ya fa nekkoon yépp dafa gent waa Mbàkkeek waa Kànkaak waa Saateek ñëpp mu jël leen yóbbu leen Saalum ba mu leen yóbboo Saalum nag ba ñuy dem nag Maamoor Anta bi nga xamee ne moom bëgg naa yóbbu sax maam Balla waaye moom maam Balla dana ko man fi ne dama jëm mag ndax maa ngi bëgg a làq juróom-ñeent fukki at maanaam dox bi day xaw a métti ci man waaye nag sama doom ji mën nga ko yóbbu muy sëñ Mbàkke Mor Anta moo tax mu daal di ko yóbbu ñoom nag bi nga xamee ne nag ñu ngi dem nag tuxu ba daa métti lool nag ndax euh, ñoom ñëpp ña ngay dem Saalum léegi nag bi nga xamee ne nag ñi ngi toxu nag coono boobu nag coono boobu maanaam tuxu gu métti googu nga xam ne dafa metti lool ndax jamono yooyu waruwaay yombut daanaka li ci ëpp da ngay dox ak it xam nga bëgg a yor say bagaas ak coono yooyu yooyu nag jàpp na soxna si ndax soxna si it daawut noppalu ndax koo xam ne nii dangay dëkke woor daa dëkke woor ak a julli ak jaamu yàlla ak liggéeyu kër coono yu yëpp nga jàpp ko ak tuxu gi tax na daal lu baree bari maanaam jeexintal ci ak wér gu ci ak wér-gu-yaramam ba nga xamee nii nag loola jàpp na ko ba yàlla dogal ba nga xamee ne àgg nañ poroxaan coono yooyu it daanaka ca la nekk rek ndax liggéey beek toxu mi toxu mi ñoon coono bi mu nekkoon ak yépp ak jaamu yàlla geeg dëkki koor geeg yooyu tax na yooyu jàpp ko ba mujj gi mu tëdd ca tawat ba yàlla dogal nag mu daa di dellu ci ngërëmal suñ boroom daa di noppalu bi mu noppaloo foofu nag ci poroxaan poroxaan googu nag foofu lañ ko denc nga xam ne it soxna jaara it am na beneen doom bu jigéen bu ñuy wax soxna Faatimatu mbakke nga gis ne kon soxna jaara ñeenti doom la am muy maam Mor jaara ak Sëriñ Tuuba maam Xabibullahi Mbàkke ak soxna Fatimatu mbakki moom ñeenti ñooñu la am nga xam ne poroxaan googu la mujj des ba yàlla dogal mu daal di fay noppalu ñu daal fay denc ñaan suñ boroom mu yokk ay leeram te yokk ngërëmam te taafuñ ci barkeem ñu ngi jéggulu ñëpp rek bu fekkee am na ay téq-téq matadi doom aadama la su fekkee nag mat na nag suñ boroom la in uridu ila l islaaha mastataatu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa taala wa